الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه وقتان الصبح وقتان الصبح وقتان الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له waxtaanu suba jataay la bu leen rajo leeral fm bu Louga 104 point 6 di baaxee suba su ne di ci dalal kenn ci borom xam-xami lislaam yi muy waxtaan ci tomb yu fasantikoo yoo xam ne dana jëriñ jaam bi ci bëccëgam bi yépp saa yoo yeewoo war nga am lu lay gindi di la leeralal sa yoonu jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ànd leen ak rajo leeral fm cent suba bu ne bu sept jotee maanaam juróom ñaari waxtu ci suba ci jataay bi ñuy woowee waxtaanu suba wa ilal hisaab defal waxtaanu suba fii leeral fm muy sab yóbbal bi sab yóbbal bi sab yóbbal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 mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk Hamzatou Gaye mooy del siwaat di ànd ak yéen ci seen jataayu leeruk siba di ñaan Mawlaana tabaraka wa taala mu boole leeral sunuy xol leeral sunu lépp waaye itam mu teglu ci ak njub ñu saxal saxal ñu ci bañ ci ak moom am ngërëmam li nga xam ne mooy li gën a màggalu nit di am loolu yomb na yàlla lool yàlla na ko boole defal mbokk yi tëdd yi ñu ñëwaat di wéy rek ak dundub suñu yonente muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngir mu doon lu ñuy dimbali di jàppandal suñu rafetal gi nu war suñu digg ak moom ci roy ko ak topp ko ak teg ko ci sunu kanam mu nekk làmp bi ñuy niital ñu doon ndox ci loolu nag ba ñëw ci xew-xew yi nga xam ne ginnaaw bi mu gàddaayee moom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jóge fële nga xam ne fa la cosaanoom ni makkatal mukarrama ñëw almadinal munawwara mbir yi nga xam ne xew na ci atum ñaareel moomu ci gàddaay gi ci lañ nekkoon ba agsi ci nag xew bii nga xam ne mooy xew-xew bi gën a rëy bu xew na ci bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ñëwee almadinal munawwara te mooy ghazwatu badril kubra xare la boo xam ne xare bu tedd la bu mag la bay na ko tedd nga rek boroom bi tabaraka wa taala moo ko tuddee tur wow leer na ca yi la mu wund ba muy wax ca suuratul anfaal nga xam ne saar wu ca loolu la ko wàccee daa wax ne واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير foofu borom bi tabaraka wa taala mi ngi jàngal jullit ñi bu ñu jógee ci xare bi li nga xam ne moom lañu war a def ci lañ jële ci ak màng ci am koom jële ko ci yéefar ya ci biir loolu nag li tax ñu indi aaya bi mu ne leen nag ak li ñuy wàccee ci sunu jaam bi su ngeen gëmee yàlla gëm ci li ñuy wàccee ci sunu jaam bi Muhammad alayhi salaatu wa salaam yawmal furqaani yawmal furqaan foofu mooy bis bi teqale diggante dëgg ak caaxaan diggante ngëm ak kéefar te mooy yawma badrin li nga xam ne noonu la ko mu roxo tafsir yi di leeral ñi fi moo tax mu ne yawmal taqal jamaan bis ba nga xamee ne ñaari mbooloo ya dajee nañ te ñi ànd ak Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak mbooloom yéefar yi àndoon ak Abu Sufyaan ci booba jamono ndax Abu Sufyaan booba duggagul ci lislaam ginnaaw bi nag dugg na ba rafet la ak lislaam ci ba génn àdduna ci lislaam kon ñaari mbooloo yooyu ñoo woon yàlla wax na ko itam ci junj ci beneen barab wax ne qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiilillaahi wa uxraa kaafiratun tarawnahum mislayhim ra'yal ayn gis nga foofu mu ne itam ñaari mbooloo yi nga xam ne daje nañ benn mbooloo mu di xeex ci yoonu yàlla beneen mbooloo mi di mbooloo mu weddi yàlla kon la muy xeexal leer na muy seytaane lay Euh, maanaam jàppale ci yoonu seytaan lay xeex foofu kon yàlla wane na ne kimtaan gu rëy la mbooloo mu néew danañ ko wax ci kanam dikk maanaam not mbooloo mu bari moomu ci ngànnaay yeek ci mat nattukaay yëpp ñu ëppale woon ëppal leen ci waaye ñu not leen kon mbokk yi te xare bu am solo la boo xam ne di ci mën a def ay jàngat ak i nafar ci benn jataay rek waaye jataay bi dañ koy jagleel rek ay lenn ay mbir mooy xare bi solo si mu am ci lislaam wàccuwaayam waaye itam taarixam kañ la xewoon waaye itam mbir yi ko waral ak it yoon wi yennati mbir yi nga xam ne xew na ci yonent bi sallallahu ko ak jullit ñi war cee jàngi ay bind ba eggee ci barab ba nga xam ne fa la jàmmaarloo ba amee muy Badr kon jotaay bi loolu rek lañ koy jagleel jàpp liñ ci jot a wax li ko yàlla tudde ak li ko yàlla waxtaane ci alxuraan wax ko ci ay barab suratul anfaal moom lépp xaswatul badr ko moom lu fa dugg rek day luy gaar waaye lépp ci xaswatul badr lay wax saaru lëm nag yaakaar naa ne euh, mbir mu ko borom bi tabaaraka taala beral loolu wane na soloom waaye tur yi mu ko tuddee itam ne yawmal furqaan bu màgg boobu ba tax na sax ñi nga xam ne ñoo ko fekke woon ci asxaaba yi ñoo gën ñu dul ñoom ñi nga xam ne malaaka yi ko fekke tamit ñoo gën ñu dul ñoom te malaaka yi ko fekke wut kon loolu wax dëgg yàlla mbir mu rëy la yàlla sax toppatu leen dara ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ahlu badrin ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxe waxoon Omar ibn Khattab ne ko uma yudrika tala ala ahli badrin fa qaal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ci xew-xew boo xam ne xewoon na ba Omar bëgg caa dal ci kaw Xaatib abi Baltaata ngir jàppe woon ko ko xam ne naafiq la parce que ala du naafiq bi sallallahu alayhi xamal ko ñoom day yàlla ci boppam daa toppu leen dara da leen a jéggal seeni rëcc rëcc tekkiwul ne dañuy sañ def ay mooy yàlla waaye buñ ko defee itam yàlla baal leen faqad ghafartu lakum kon mbokk yi teddi loolu wane na solos xare bi lool boo toppee alxuraan da nga fekk na sax xare yim tudd nga xam ne seen tur la tudd bariwut yenn xare yi da koy tudd ci maanaam xew-xew yi ci xew bii nag tur bi tudd comme ni nga xamee ne ghazwatul ahzab ba tey tudd na ko euh, ghazwat Hunayn waaye yenn xare yëpp lu mel ne Uhud wax na ca lu bari waaye tudd tur ba doo ko fekk ci mukk kon loolu itam beneen euh, mbir la wala beneen mbir la moo xam ne yittewoo gu alxuraan yittewoo xare bi feeñ na ci mooy tudd gi mu ko mer tudd ko ci biir xare yu néew yu mu tudd tudd seen tur ci lool euh, loolu nag bu fekkee que dañoo bëgg a xam kañ la xewoon ndax bat léegi ñu ngi ci atum ñaareel bi ci gàddaay gi yi ci xewoon la ñuy wax te lii di xew-xew bi ci gën a mag xasuwatu badril kubra bisub gaaw yow ma sabti tolloog fukki fan ak ñaar ci weeru ramadan di weeru koor boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn jóge al madinatul munawwara kon atum ñaareel bi ci gàddaay gi di bisu fukk ak ñaar ci weeru koor ba muy génn itam niñ ko baaxu xame rekk ci jàlloon saa buy génn day batale ku jiite waa dëkk ba ku jiite waa dëkk ba mu matale kon abu lubaaba mi war a jiite dëkk ba taxaw taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog muy ñëw ah, naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li waral mu génn suñu xamee kañ la génn wax nañ ko ana lan moo waral mu génn li ko waral moo di dafa jot ab xabaar bu koy xamal ne Abu Sufyaan booba yéefar la woon ñu ko fàtte ci boobu jamono muy kilifa ca Makka kilifa gu mag moom day mi ngi jiite benn karawaan boo xam ne alali Quraysh ñoo ca nekk jógee Sham ñu war a ñibbisi Makkatal Mukarrama alal yu rëy yu mag xam ne dañuy wax ne lu mat junniy gileem Yuusuf ma nga ca woon loolu bari na lool junniy gileem Yuusuf ak ay alal loola la yëgoon ne ñi ngi mu daal di wax jullit ñi de leen kon day jëgg jàngoog ay alalan ca kon nag génn leen ndax yàlla jox leen ko ak màng am koom foofu itam kii xamul bu baax bu ko déggee dana ah waaw l'islam ni mu maanoog ni mu am bare yërmande ah da cee bokk kon di dogale di nangu alalam da ko loolu da bokku ci waaye ñoom liñ doon nangu ji du alali jàmbur waaye seen alal la benn wax naa la ay yoon ne la jullit yi nga xam ne ñoo dawee wala ñoo gàddaaye Makka ca wax ji gën a wér ñëw Madina di rawale seen diine ñooñu day seeni alal yépp dañ leen a xiit xiital bañ bàyyi ko Makka te la jiit loolu itam ñu leen seen yaram dañ mën a dóor dóor leen ñu génne leen seen yonent bi nga xam ne itam moo leen jiite ñu di ko sonal di ko xatal ba mujj def réunion générale boo xam ne dañ ko doon embargo bëgg koo rey mbaa ñu tëj ko mbaa ju génnee ko ba ndigal jóge seen borom jox ko mu génn waaye yëmut ci loolu sax bi nga xamee ne génn dañ ba noppi dañ ko doon jéem a dab ko farangalaat yëmut ci loolu lépp wax nañ ko ci ginnaaw ñi ngi doon euh, collaborer ak ñi nga xam ne ñooy yéefar yi nekk maanaam almadina te yónni sallallahu alayhi wasallam defoon nañ ñu accord boo xam ne dañuy fiq jàmm dund jàmm waa Màkka ci boppam ñu ngi doon jaar ci suuf de di xattal ñooñu ci kaw jullit yi kon bàyyiwuñ leen euh, nekk kon benn menace boo xam daa taxaw seen kanam nga xam ne kon bañ leen xatalee bañ génn taxu ñu bàyyi leen kon ñoom ci état maanaam ñi ngi toll ci tolluwaayu guerre ci lañ toll te xam ngeen ne guerre dafa am ay ah, ku nekk xam na ko lu bokkut ak bu ñu nekkee ci ak bu saalama jàmbalante ci kaw loolu kon moo tax ah, boo xamee loolu rek dana yomb fi yow lool nga xam ne kon alal ji doon dogale ji seeni alal da caa nekk waaye itam ki ko yor de seen doon boo xam ne bis bu njekkee seen kaw la jëm ñu dëggoon kon ci ndigalul euh, suñu yonente di ko euh, dabu ji moo tax borom bi tabaraka taala wax na ko ci suuratul anfaal kama axrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min almuminina lakaarihuuna yujaadiluunaka fi lxaqqi ba'dama tabayyana ka annama yusaaquuna ila almawti wa hum yanzuruun nga xam ne am na jullit yoo xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi di dabi maanaam jëgg jooju ñu wax ne dabi ko ba waroon génn gi ba jëgg ja léegi nag muy gisoog ñoom am na ci dañoo gisoon ne ah jàmbaar lu yéefariñ moom loolu yombut di mun lenn ci jullit ñi ay na fariqan kon li ma bëgg wax ci ay mooy ka yàllaa ko génne bil xaq kon leer na ci ndigalul yàlla la génn loolu nag day na sëkk ci ne kon amul foofu jiix jaaxal ci wax ne ku gëm yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wasallam kere bi muy génn ngir mbir mi jàkk gi mu jàkk nekk mbirum xeex waaye mbirum dogale alal rek la mu ànd ak fukki maanaam euh, ñetti téeméer ak fukk ak ndàngam ci jullit yi kon bariwuñ ñoom itam ñi ngi yore woon pour nga xam seen jumtukaay juróom-ñaar fukki giléem yoo xam nañ ko doon wutante ku ku yéeg ba wàcc sa borom yéeg yoruñul ci ay fas lu dul ñaari fas wenn fas yu Miqdaad moo ko moom waneen fas yu Zubayr ibn Awwam moo ko moom yonent bi sallallahu alayhi ci boppam sax kenn la woon ci mbooloo mi di wutante ak gileem bokk koog Ali ibn Abi Talib ak Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi genn gileem am na ñuy wax beneen wax it yeneen tur ñuy lim ne ñoom ñoo ñoom la bokkaloon ñu bokkut ak ñooñu waaye daal moom daa bokkoon ak euh, daa bokkaate woon gileem comme ñëpp foofu benn Euh, darsu daal day jëw bu leer ci troxloom ak wàcc gi wàcc ba tolloog nit ñi yem ak ñépp ci lépp du ràññi ko ci lenn luñ koy daral loolu lu am solo la ci jiit muy mu def li ñuy wax modeste tawaado toroxlu wàcce boppam loolu da koy gën a dolli ak cofeel ca sax ñami jiite waaye saa bu xamee ne funkali ko am na ak gis sa bopp nekk ci asamaan sa di wax nit ñi ci suuf rek mel na da nga leen a kawe daal loolu moom nit ñi seen bopp sax bu ñu la ko nangulee ci kaw it ci biir seen damir seen biir moo ko du nangu kon woyef lu moom booy xool dund bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp da cay feeñ te yàlla moo ko ci yar moo ko jàngal moo tax jul bu ne war ngaa jël boobu jukko def ko muy sa jukko muy wàccee sa bopp bu baax a baax wàccee sa bopp nag bokkut ak ñàkk fayda ak matadi waaye daal nga doon ko nangu dëgg dan koo xam ne doo jàpp ne da ngaa am ngëneel ci kaw kenn doon koo xam ne doo jéem a teg tànk kenn yàlla ko ko wax ne ko yaa ayyuhan nabiyyu yaa ayyuhan nabiyyu xaridil mu'minin bokkut ak aay boobu sax beneen aay da ko wax ne ko waxfid janaaxaka liman ittaba'aka minal mu'minin parce que fële ca suuratu suuratu mu ne ko da wàccee sa bopp ci jullit nga xam ne ñoo la topp waxfid janaaxa waxfid janaaxaka liman ittaba'aka kon jikko yu fay da lool ba sax bi nga xamee ne bi ngi bokk ak ñi bokkal gi ku yéeg ba noppali ku wàcc yi sa borom yéegaat dañu mujj ñoom bi bi mu waree dox ñu ne ko teñ laa bàyyi nga yéeg ñun ñu dox waaye xoolal lu leen wax dana leen day yéen ma antuma bi agna bi bi aqwa minni lu am solo mu leen yéen maanaam ëpp leen ma doole lu baax la lu baax la ci jullit waaye jullit boo ba rek wàccandiku noonu nga xam ne ab saako sax du ko mën a yëkkati <laughs> budul bind bu ko yàlla nattoo nga xam ne moo moo ko incarné rek doon doon lu ko ba doon ko loolu moo wax dëgg yàlla man naa ñàkk en tout cas ab jullit daal waroon koo xam ne day am activité am cawarte amit force boo xam ne da koy jëfandikoo ci lu baax ko yéen di sallallahu alayhi wasallam leen yéen day gënu ma euh, am kattan waaye te wala ana bi aghna anil ajri minkuma mayit euh, maanaam gënu ba a ñàkk soxla tuyaaba maanaam ëpp leen gënu ba soxla tuyaaba kon maanaam lu baax li ngeen bëgg daal la laa bëgg kon nag dañ amante gi leen gi rek loolu mbokk yi te di tom bu am solo la ci toroxlu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa bu doon ñu bari ci nun ah dañuy daal di ah, duñ xaar sax ku leen wax waaye ñoo ñoom ñoo koy sàkku loolu nag ah, wax dëgg yàlla bokkut ak yi ah, roy ci fi mu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci toroxlu ga ak wàcc ba tolloo ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon di woote woote suñu borom tabaraka wa taala mbokk yi te di kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la génnee waaye nag ah, bi nga xamee ne dem na ba ci yoon wi di dogale ji jëgg jooju Abu Sufyaan moom itam baywul boppam ndax ñi nee naa la ñu ngi nekk ci jamono yi xëccoo ak guerre tax na moom itam mi ngi doon yëddu di laaj xabaar ba yàlla dogal mu yëg ne ah, Muhammad kat génn na ànd ak saxaaba Euh, ñuy dogale si maanaam jëggam jooju ba bu yëgee dafa daal di luyee benn bi ñoo xam dam dam ibnu amril xifaari ne kon na lagg daw dem ca Quraysh alerte leen xamal leen ne Muhammad mi ngi dogale seen jëgg ji ànd ak ay gaayam ay àndandoo ah ngir xew na xam nga Quraysh ñoom ay commerçant yu mag lañu woon ba alxuraan wax na ko rexlaka sitaay wa sayf seen ñaari tournée yooyu daan def ci jamonoy sedd bi jamonoy tàngoor wi di dem Yaman ak Sham di wuti ay marchandise ak di yaxantu ji loola euh, lu fis la woon ci ñoom ba alxuraan yaxal ko kon bi ñu yëgee ne kat seen dégg jooju Abu Sufyaan jiite woon te ñu ne la woon ñeent fukki nit a ko doon saytu te mu nekkoon junniy gileem ñoom itam dañoo daal di euh, buur ñëpp jóg waa ji tax bi mu ñëwee ngir jàngal mbir mi dafa dafa dafa dafa dagg bakkanu dafa dagg maanaam nopp giléem gi daal di koy daal di wëlbati tegg safaane ko daal di yuuxu nag woote ne maanaam lagg si leen euh, góor walloo waxu na si ñëpp génn dañuy génn nuñ génne junni euh, combattant lañu indi lañu indi junni xeexkat yemuñ ci maanaam ay yor téeméeri fas ak juróom-ñaar téeméeri giléem allahu akbar lu ñu waxoon léegi si jullit yi jullit yi ba ñuy génn lu ñu yore woon ñetti téeméer maanaam euh, bi ñuy génn ñoom julli ñaar la ñore woon ci ci ci ay jumtukaay ñaari fas kepp ak juróom-ñaar fukki giléem di ñetti téeméeri nit ñi nekk ñoom junni nit doole ko ci jëlee ba noppi yoon téeméeri fas contre ñaari fas juróom-ñaar téeméeri giléem contre juróom-ñaar fukki giléem xalaatu ci loolu baax mbokk mi ngir nga xam suñu borom tabaaraka ko taala ku bëgg dimbali maanaam li ma lay dimbalee te kenn du ko mën a faj kon tam itam ah, dars bu am solo la kon ñooñi ñoo jóg bi ñu jógee lu def ah ak seen i gànnaay tamit kenn ci ñoom nag ku mën a dem rek dem nga waa Quraysh kilifa yaa ñëpp a waaw kenn yebalewut xanaa Abu Lahab bi nga xam ne moom moom daa yeble ku ñu wax Ibnu Hisham la yebal <coughs> ci loo xam ne da ko ko luyoo ci alal ju mu ko kon ma waaye bu dul loolu daal da am na sax ñu doon jéem a roosaanu ku mel ne Umayya Umayya ibn Xalaf yooyu yëpp kilifa yi Quraysh lañ bokkoon moom dañuy wax ne Uqbatu ibn Abi Mu'ayt boo ñëw fekk ko mu toog ba taalab ànd wala mel adu cuuraay daal ko ne yow ko ci jigéen jëkk bokk kon bar ngaa bar ngaa suuru bar ngaa bar ngaa jaaru foofu suurul foofu waxee loolu rek maanaam euh, jàpp xolam tàng bu daal da koy li nga li nga wax a bon daal di ko xaw am yaram amul cawarte yaram waaye ko waxee loolu rek gis nga daf ko jarale loolu la ñuy jàngee bi nga xam ne yaay euh, jullit bi yow bi nga xam ne yaay jàpp ci lislaam su fekkee te ab yéefar la ak ceeb jaral li yow loolu la lislaam war a jaral yow si jàmbaar ak défendre ko ah ci sa alal ak ci lépp loola lu am solo la loo xam ne mën nga ko jàngee xataa ci sa noon bi nga jàkkaarloo kon positif boobu la am moom positif ndax positif du jàngee yëpp a baax positif bu dee ci lu baax la lay baax mais bu dee ci lu baaxul moom ah musiba lay doon ca borom ay kon positif la am ci bi ko umayatu bi ko waxuma jikkee reetaan ko soññ ko rek dafa daal di jóg bañ ah, jomba ñaam li ñu koy waxee daal di jóg dem moom tam kon ñoom ñëpp jóg Quraysh ku mën a dem na dem nga Euh, ngir seen alal la ci nekkoon euh, seen i seen i seen i a ci nekkoon mooy moo doon seen adduna ah biñ demee nag ñi ngi génn génnin wu ànd ak maanaam euh, cakaayu ak puukarewu waaye bi nga xamee ne ñu ngi dem ci yoon wi ñu ngi wax na ndax Muhammad dafa jàppale ñun ñun dañoo bokk ak suñu jëgg yi day mel ne jëggu euh, ibnu xadar bi waxoon la sànq ci bay jaal ibnu xadar bi dañ ko julli moom moom la njëkk a dogale euh, faagagal ko euh, ba jàpp ñam àndaloon ñenn ñi waxoon ko ci ginnaaw ñu ne nag moom xam ne tey ñun bokkuñu kooku kon ñu ngi gëm seen bopp bi nga xam ne jóg nañ bëgg a demit ci yoon wi seen xel dem ci loo xam ne kat nañ ko ak genn giir gu ñu wax bani Bakr ibnu Abdi ci xeex bu ñu seqoon ak ay deret bi ne bu ñu tuut ñii bu ñu leen bu ñu jaaree fii mën nañ ñoo dogale bi ñu waxee loolu seytaane bi nga xam ne lu bon da koo jaral mbokk yi seytaane daa daal di feeñ yor jëm bi ku ñuy wax Suraqatu Malik fa Suraqa fàtte woon mooy ki nga xam ne moom lañ moo doon dem di jéem a dem yéen sallallahu alayhi wasallam ba tànki fas woon wóor kon ci kilifee la moom Suraaqa bu daa bokkoon ci kilifee Kinaana muy muy giir googu nga xam ne moo ñi ngi bokk ci Kinaana di Bani Bakr ibn Abd Manaata ñooñu Euh, euh, maanaam la euh, la la Quraysh xaw a ragal waaye seytaane boo def jëmmi seen kilifa daal la leen moom amul problème mën ngeen dem loolu alxuraan di wax ne bu ma si doon nettalee mu ne wa iz zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qaala laa ghaaliba lakum al-yawma mina an-naasi wa innii jaarun lakum falammaa taraa'ati al-fi'ataani nakasa alaa aqibayhi wa qaala inni إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب maanaam loolu alxuraan wax de seytaane moo leen fay ñoom indi jaarul lëkkum man maa leen di jaar may seen maanaam man maa leen garanté waaw kinaana du leen def dara waaw comme jëmbi kooku la yor nag ah dañuy defee ne boobu la rek ñu daal si xel daal ndax boobu li bi boobu daje bi jaral na ko lu ne ndax jàpp ne jéemuñ dajeeg julli ji lañ leen di euh, <laughs> yàlla boo am na lu euh, naar lu bokkut ak loolu mu euh, xalaat moom seytaane yonent bi sallallahu alayhi ci yoon yi di dox fekk ba muy génn wax naa ne léegi na Abu Lubaaba la la jiitalul ci Madina waaye loolu ci yoon wala ko delloo bu dellu waaye njëkk loolu Omar Amr ibn Maktoum muy silmaxa su baax soosi la maanaam Euh, batale woon buy jiite nit ñi julli waaye bu delluwaat amulu baaba itam bu war a taxawee euh, kilifteefu Madina ba ba muy ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam euh, bi nga xamee ne waa Quraysh yëg nañ loolu ñoom dañoo jub di dem ci yoon wi lañ leen informé ne leen Abu Sufyaan yu yónnee leen daw xamal leen ne kan moom jàdd na yoon ba rawale alal ja kon mën nañoo dellu waaye bi ne dañuy dellu Abu Jahlin ponkalum seytaane mi daal ne loolu lu ci dal du daal dañuy egg ba badar ak suñ mbooloo bi bu demee ñu rend ci giléem la ci giléem yi lekk lakk yàpp jaam yi wayal ñu naan sàngara arab yi xel loolu alxuraan wax de wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa riaa annaasi an sabilillah wallahu bima yacmaluuna muxiit bu leen mel na ñi nga xam ne dañoo génnoon seeni kër ngir rëy rëylu ak bëgg gis ba gis leen ba wala annaas ak di jéem a ndox diggante nit ñi ak njëbu yàlla ak yoonu yàlla yàlla xam na seen jëf ñëpp peeg na ko kon du ñu raw yàlla loolu bi ngi seen alfal seen alfal kon gis nga ko moom itam dafa faramfàcce loolu sa ci euh, xew-xew bu màgg bi di ghazwatu badril kubra ah ñoom ñu ne kon Abu Jahli daal leen di man ma ne dañuy dem am na sax ñu Euh, euh, jote joxe xalaat ne déedéet waaye moom dafa war dañuy dem day faaw du dem daal ba wane suñu bopp kon euh, lañ doon rawale si ci alal ja raw na waaye taxul ñu deltu ginnaaw dañoo dem ñu kon ñi ngi ñëw jëm ci Badar yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñëw jëm ci Badar Badar boo ko déggee pour am ndox la boo xam ne dafa nekk ci ab barab bu fala mbir ma xewee boo tax ñu naan rasatu Badar bi xasootu xasoo yi ngay dégg ñu koy tuddee ay ñu tuddee ay tur yi doon lay demee day xew ca barab ba baa fu jege barab ba gis ko ci xasat buwaat gis nga ko ci waddaan gis nga ko ci ko beneen tur woo xam ne mbir mu ci xew la woon lu mel ne euh, zadru riqa nga xam ne dañoo doon dagg ay sagar di ko def seen dàll yi di ko sol ngir ba ñàkki dàll la ku li xaal tur yi dafa am lu ko tax a jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mi ngi ñëw jëm badr waa Quraysh itam ak Abu Sufyaan bu yéefari booba ji ñëw jëm si Badar ñu war a daje bi mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi ba egsi ci maanaam euh, barab bu ñu wax sëj euh, sëj sëj foofu euh, mu wàcc fa jógewaat fa jaar ci maanaam côté yoonu Makka ci côté càmmoñ bi jëm ci Badar jaar yoon woo xam ne daal moom itam mi ngi bàyyi xel ne ci guerre la nekk ngir noon yi duñ ko man a jóge ginnaaw jekk ko kon yoon wu lu mel ne lam defoon ci ba muy gàddaay xool yoon wi muy jaar ànd ak ki koy tegtal yoon wa ba duñ ko mën a dab lu mel noonu la defaat fii rek ndax jël asbaab yi daa bokk ci ngëm yàlla bokk ci tawakkul asbaab yi ngay am pour mucc ak yi ngay am pour am li ngay bëgg ginnaaw asbaab yi yu yoon daganal la yu yàlla yoonal la kon asbaab yi la doon jël waaye nag ci biir asbaab yooyu dafay yónni ñaari ndaw ñu koy rajul xabaar yi ndax ndax tajassus moom ci geer dafa dagan léeg-léeg sax mën naa doon lu war nag Euh, bi nga xamee ne dem nañ euh, maanaam ci biir yoon yi moom bi ngi romb moom itam sallallahu alayhi wasallam ñaari montagne yoo xam ne tur ba dafa dafa dafa dafa dafa dafa wundul lu baaxul ndax boo xam ne dafa tudd Muxzi mooy ku gàccaal dafa dëkk tudde Banu Naar muy doomi sawara Banu Xuraax muy lépp ak fi ay sawara ak tàkk-tàkk sallallahu alayhi wasallam daa bàyyi montagne yooyu muy euh, ñaari montagne yooyu nekkoon ci barab bi ñu jaar ci côté nday jooram ba egsi nag ci fi ñu wax Zafiran Euh, fu ko defee mu wàcc foofu foofu la ko xabaar bi jëwal rek ne ko léegi xoree si génn nañ pour jéem a sauver seen giir gi mu daal di dooga diisoo ak saxaaba yi diisoo ñëw foofu mbir yi am solo xaw na fi euh, Abubakar jug na wax ju am solo rafetal lool Omar jug wax ju am wax ju am solo ne ko wéyal ci leen yàlla digal ñun ñoo ngi yow ànd du ñu wax la Banu Israayil waxoon Muusaa naa ko demal yaa sa borom ngeen xeex fii la toog waaye dañ daan la demal yaa sa borom di xeex moom ne Euh, yàlla bi yoonu ci dëgg de boo doxoon ba ci barab bu ñu wax barkal xabaat barab bu sori kon it danañ ànd ak yow dem képp ku dox ci diggante bi danañ ja danañ jaayee di jëflanteeg moom ba nga egg fa nga jëm kon daal duñ la seetaan duñ des ginnaaw loolu la wax waaye ba tey kon kooku ki wax loolu euh, euh, kenn la ci mbooloo bi waaye des na ñoo xam ne waxaguñ ba tey mooy mooy ñi nga xam ne mooy al ansar waxaguñ mu ne mu ne mu ne jox leen ma xalaat yéen nit ñi gannaaw bi mu yëgee ne ji nga ñëw mu ne jox leen ma xalaat ñu jox ko bu rafetlu xalaat yëpp muhaajiroon yi wax ansaar yi mujj yëge ci ne kon ñoom ñii moo tax ñuy wax ñoom ñu waxagul nañu wax ansaar yi boo ko déggee mooy ñi nekkoon Madina te ñi nga xam ne ñoo ko fatoon ñoo ko dalaloon Madina ah ndax ñoom li ñu ci yeewoon mooy aar ko ci biir Madina rek moo tax sa saanum maas kilifa ansaar ne ko waaw daa mel la ñu waxal de mu ne waaw saa ne ko nun gëm nañ la dëggal nañ la te xam gëm nañ ne li nga andi mooy dëgg jox nañ la suñu colère ak suñuy euh, pas-pas euh, suñuy li li ñu fasante yow ci topp la ak déglu sa digal demal ci li yàlla sant li nga bëgg joge way ànd waar nañ ci yàlla ne boo koosoon géej gi sax ñu ko koos ko euh, ku ci jëm doon naa ni ndax mbirum xare moom ndamu daga na ci jàmbaar la ñoo xam ne euh, yaakaar na ni yàlla la wan ci noonu loolu la bëgg loolu ndax loolu itam maanaam euh, ñi war a àndal mbir bi nga nga yëgoo ci ak ñoom war yàlla yëgoo surtout mbirum suñu borom loolu day am solo lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggal daa mel maa ngi gis ñoo ñi ñëw di jéem a rëy rëylu ak dal ci kaw jullit yi ah, ak di seen bopp kon maanaam fi ñuy daanu nga xam ne dana dugg barab yi naan fii mooy eh, ëllëg fi di diw sàngam di fi di sàngam di daanu fii mooy ëllëg fi di sàngam di ba nga xam ne bi mu wàccee fee ci wetu Badar eh, yi ca xew yëpp eh, ci xalaat bi ko saxaaba leen saxaaba xalaatal mu wàcc barab bu baax da yéeg jiitu leen ca maaw ba dër bi ndox ma defal fa ay ndox yu fàggandi ko ñoom daal di sakk yeneen ndox ya bari jamono bi ñu mën am ndox bu jegsee loolu lépp dañ koy ajani ba ak it mbaar bi ñu ko tafaloon bu nekk ca fanaane di julli ak di ñaan borom tabaraka wa taala ak liwaayu ba yàlla nett lu lépp ci alxuraan defal leen dam ko loolu dañ ñëw incha allah tabaraka wa taala euh, ci jotaay bii di ñëw kon waxtu moo ñu dab ñu taxawal foofu rek di wax ne kon asuutu badra goog ci li ko waral te mooy dem di dabi jëgg ñi nga xam ne mooy jëgg Quraysh ñi nga xam ne ñoo faloon jul ji nekk ak ñoom guerre di leen fexeel euh, waaye itam euh, yàlla damoo la ne lu bokkut ak alal waaye mu dam ko daje diggante jullit ak yéefar yi mu daje bi njëkk bi gën a màgg dafa am ca ndam lu rëy loolu waaye itam euh, xew itam ci fukki fan ak ñaar xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn maanaam ni ko waxee sànq ci yor Ramadan génn al makkatal mukarrama al madinatul munawwara kon dajeeg ñoom bu subaa jàmm bu ñëwaatee ci jotaay bi incha nga yëgoo ci ak ñoom war naa surtout mbirum suñu borom loolu day am solo lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen daa maa ngi gis ñooñu ñëw di jéem a rëy rëylu ak naan dañuy dal ci kaw jullit yi ah, ak di wane seen bopp kon maanaam fi ñuy daanu nga xam ne dana dugg barab yi naan fii mooy eh, ëllëg fi di diw sàngam di daanu fii mooy ëllëg fi di sàngam di daanu fii mooy ëllëg ba nga xam ne bi wàccee fee fu mu wàcce ci wetu Badar ah, yi ca xew yëpp Euh, ci xalaat bu ko saxaaba yi leen euh, saxaaba yi xalaatal mu wàcc barab bu baax da yëg jiitu leen ca maaw ba dër bi dox ba defal fa ay ndox yu fàggadi ko ñoom daal di sakk yeneen ndox ya bala jëm bi ndox bu jegsee loolu lépp dañ koy ajani ba ak it mbaar bi ñu ko tafaloon bu nekk ca fanaane di julli ak di ñaan borom tabaraka wa taala ak liwaayu ba yàlla net lu lépp ci alxuraan defal leen dam ko loolu dañ ñëw incha allah tabaraka wa taala euh, ci jotaay bii di ñëw kon waxtu moo ñu dab ñu taxawal foofu rek di wax ne kon asuutu badra goog ci li ko waral te mooy dem di dabi jëgg ñi nga xam ne mooy jëgg Quraysh ñi nga xam ne ñoo faloon jul ji nekk ak ñoom guerre di leen fexeel euh, waaye itam euh, yàlla damoo la ne lu bokkut alal waaye mu dem ko daje diggante jullit ak yéefar yi mu daje bi njëkk bi gën a màgg dafa am ca ndam lu rëy loolu waaye itam euh, xew itam ci fukki fan ak ñaar nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn maanaam ni ko waxee sànq ci weeru Ramadan génn al Makkatal Mukarrama Madinatul Munawwara kon dajeeg ñoom bu subaa jàmm bu ñëwaatee ci jotaay bi incha allah taala danañ andi euh, euh, diggante bi kon ñaata fan lañ fi am bi bi dajeeg ñoom wax nañ la itam euh, maanaa yéefar yi li ñu woon ci ay jumtukaay junni xeexkat ak maanaam juróom-ñaar téeméeri gileem ak maanaa la ñu ci fas tamit wax nañ la ko li mu fas yi muy ñett téeméeri fas maanaam wala ñaar téeméeri fas kon. Euh, loola bari na loolu wax dëgg yàlla euh, boole ci nag euh, maanaam yor téeméeri fas damaa la bëgg a wax maanaam junniy gëléem ak téeméeri fas ak ña juróom-ñaar juróom-ñaar téeméeri gëléem ak.